sëñ Abdoul Ahad ñu ngi lay jaar ngay yore eh, lépp lu jëm ci étude ci wàllu projet bu am solo bi nga xam ne ni Touba ca kanam ñu ngi koy lancé ngir assainissement Touba jafe-jafe yi ci am jeex étude boobu lan nga ñu ci mën a expliquer. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante alxalifatul am li tarixati muridiya Serigne Mountakha Mbacké Bassirou di ñaan mu yàgg fi lool te wér. ak suñu kilifa sëriñ Abibu Mbàkkeem sëñ euh, Mouhamadou fadilu ak euh, sëñ Abdoulahad Abibu jëwriñam ak Abdou Fatah Gueye mi président Touba ci kanam ak mboolem waa Touba ci kanam yëpp muy bépp murit euh, ñu ngi ziare bu baax di rafetlu bis bi nga xamee Touba ci kanam taxawal na ko ngir lancer li ñuy wax opération defar mbedd yi ndax bu ne assainissement sax xëy na assainissement mën naa rëy torop ndax assainissement mel na ne dafa nekk loo xam ne euh, lu gën a yaatu lay doon euh, li dafa am nag ñaari étude et euh, contrôle muy commission étude control bi nga xam ne yàlla def na ñu jiital ñu si dafa am trois sous commission sous commission expertise ak sous commission contrôle technique ak sous commission étude de projet et planification léegi nag bu ko defee nag na xam ne mu nekk liggéey bu yaatoo yaatu euh, nga xam dañ ceewoo bépp ingénieur commission étude et control nga xam ne dafa am ñetti sous commission yu si nekk muy si commission expertise Serigne Abdou Aziz Madialis jiite ko ak sous commission contrôle technique ak sous commission planification étude projet sëñ Kosolo Mame Thierno Lo jiite ko na xam ne ñetti sous commission yooyu dañoo woote képp kuy ingénieur wala képp koo xam ne sa xel màcc na ci dara ngay am burit nga ñëw dugg ci pour ñu ànd liggéey bi ci loolu nag ci la ñu taxawale ba ne kon dañuy def benn solution d'urgence solution d'urgence boobu mooy nan la ñuy fexee ba fii ak màggal gi ñu dindi taataa yi defaraat mbedd yi ba na xam ne nit ñi mën a Touba mën a libre ci ndox mi bu ko defee nag ñu teg nag benn comité boo xam ne comité boobu day continuer di liggéey ànd ko ak Azerut ak démarrement ak état yi nga xam ne yëpp dañuy liggéey ci wàllu assainissement pour que ñu mën a def benn solution durable loolu nag ñu ngi ci comité boobu di ci woo bépp ingénieur. kon euh, assainissement Touba fekk ngeen ko ci niveau bu difficile niveau bu jafe fan ngeen ko fas yéene yóbbu incha allah. waa fi ñu ko fas yéene yóbbu mooy pour l'instant nii nii nii fi ñu taxaw nii mooy fii ak màggal ñu fexe ba libéré dëkk bi yëpp ci ndox defar taxaw ba nga xam ne nit ñi mën a ñëw màggal si. Touba benn ndox dootul taa fenn même fu ndox di taa sax te mënuñu ko yóbbu ci rigole bu mu jege danañ wut ay pompe yoo xam ne bu bu tawee léegi ñu pompe ko léegi. ba nga xamee solution boobu mooy solution d'urgence bi waaye fi ñu ko bëgg a yóbbu nag mooy jéem a trouver nag benn solution définitive. solution boo xam ne mooy assainir Touba gépp pavé ko tali ko ba nga xam ne mu mel ni na xam ne noonu la ko borom ñaane woon suñu borom te ñëpp xam nañ ne ku tedd ki lépp lu mu ñaan suñu borom rek may nag ko laata mu koy ñaan kon foofu nag lañu jëm mooy buñ paree ci solution d'urgence bi ak comité assainissement bi ñuy taxawal war ko ànd ak démembrement état yi na xam yëpp dañuy yëngu ci loolu woo ci ingénieur bépp boo xam ne rek murit nga sa xel màcc ci wàllu assainissement muy eau usée eau pluviale eau portable muy tali muy lépp ñu àndandoo liggéey ba nga xam ne Touba incha allah min ñu mën a résoudre problème ah, ñu ngi lay jaar soxna si présenté vous. Euh, Mame Niania Aidara présidente euh, commission santé Touba ca kanam. Mhm. léegi yéen a ngi lancé benn opération bu am solo assainir Touba ànd ci ak mbokki taalibe yi bu ñu waxee mbokki taalibe yi nag góor ñi la ak soxna yi ban taxawaay la ci soxna yi am ci euh, jëf ju am solo ji. ay cheikh bi laaj nga ma laaj bi am solo man dama naan Touba ca kanam moom jigéen ñi la pourquoi jigéen ñi la parce que Touba ca kanam xaalis la soxla collecte te collecte bi macha allah suñ borom daf ñoo dimbale si njiitu soxna Bintu Mbacke mu sëñ euh, Abdoul moom mi nga xam ne kenn mënu ko ci collecte bi moom mooy présidente section féminine bi mais macha allah bu ñu yeboo ñu nekk 75 pour cent des collectes de Touba ca kanam jigéen ñi ñoo koy def kon jigéen ñi taxawaay bu am solo lañ ci def. te ba tey ji tamit fi ñu toog nii rek nga xam ne ñun ñoo féetewoo collecte jigéen ñi rek macha allah liñ fi dajaleegum ci suba ak léegi takku na lool waaw kon jigéen ñi moom. da ngi liggéey bi euh, au niveau fi nga xam ne ni mooy euh, cérémonie bi tey boo doon joxe euh, soññe wala lancer message ci yeneen soxna yi lan nga leen di wax ci liggéeyu Touba ci kanam rawatina liggéey bu am solo bi bi ñu tàmbali. macha allah assainissement bi yàlla dafa dogal xëj na euh, fi ñu ko tënkoon muy 350 millions yi suñu borom yembal na ko waaye ñun ñu bëgg a jàll ci beneen phase nag ñu bëgg a jàll ñu bëgg romb li nga xam ne ñun moom lañu bëggoon loolu ñu ngi ciy woo soxna yi comme niñ ci mënee ci ci collecte bi mën ci yëre yi man ci tabaski yi mën ci lépp ñu ngi leen di woo ci assainissement bi te am nañ yaakaar tamit ne kenn du leen ci man bàyyi wuñu mbootaay bàyyi wuñu daayra bàyyi wuñu association bàyyi wuñu marché yi bàyyi kenn ñu ngi leen di woowaat ñoom ñëpp rek te niñ ko naan defee. murid yi lu nekk joxe nañ ko murid yi lu nekk def nañ ko ngir lan ngir projet bi nga xam ne song nañ ko muy l'opération defar mbedd Touba ngir waajale ko màggal yi moo tax le huit bi tey ñu fas yéene def lancement officiel bi liggéey bi tàmbalee tey ñu fas yéene fii ba màggal incha allah. lépp loo xam ne point la un point bas ñu lijjanti ko. mel ni bi ngeen ko lancé ak léegi yàggul yan stratégie de communication ngeen def ba réussir yëf yi. waaw bi ñu ko lancé yàggul mais xam nga Touba ci kanam soo gisee ay mbiram nit ñi dañ cay songu mooy dafa nekk la transparence Touba ci kanam dafa nekk kuréel goo xam ne su wootee murid dañuy ñëw parce que dañ ko wóolu parce que sunu sunu sunu slogan mooy laat murid yi. lu ñu mën waaye def ko fu ñu xam loo moro chaque fin du mois Touba Ca Kanam day def ce qu'on appelle un bilan financier tas ko ci sociaux yi tas partout ñëpp xam ni Touba li Touba Ca Kanam li la dugal donc sous peu de temps dañoo lancé mbir mi murid di sous peu de temps ñu matal xéewal gi ba démb gis ngeen lu xew 2STV yi Tahirou Sarr à lui a donné deux cent quatre-vingts millions sans compter les autres